you Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu xóot te dëggu notre force le traitement de l'info mbokk yi xarit yi nga xamante ni yéen a safoo seen chaîne bi di Uras Info nuyu nañ leen ziyaara leen di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen seen kontaan suñu mbégte seen kóolute suñu sawarte yéen a ngi ànd ak seen xarit seen soppe Mariama Seck ci seen jotaay xibaar bi Uras Actu People ñu leen koy amal altine bu jot di am kontaante bu baax bàyyi xel bi nga xamante ni yéen a ngi koy bàyyi ak du suñuy xibaar di seen chaîne bii di Uras info fi ñuy tàmbalee suñuy xibaar mooy foofee ci diwaanu Mbour ci armeel yi nga xamante ni moom mooy armeelu Mbour Tefes ñu gis ne dañ fee suul bopp nag ak tànkam nag bu ñuul kooku ñii di police scientifique yi bi ñu yëgee loolu dañoo dem xool euh, gis ne fa bopp nag boobu ñu fa suul ay xaatim lañ fa def loolee mu ngi doore ci alxames ji ginnaaw bi trois heures du matin jotee benn waay bi nga xam ne indi nag benn kat x bu weex moo waxtaan nag ki nga xamante ne mooy gardien armel bi ñu daal di gas foofee daal di fay suul li nga xam ne moom mooy bopp nag bi bi benn jigéen bi nga xam ne côté yooyu la dëkkee moo informé police scientifique yi ñu daal di ñëw sulli ko daal di xool gëstu gis ne li leen wax loolu am bopp nag bu ñuul ak ay tànkam lañ fa def def ci ay xaatim. Uras Info l'info. à ba tey ñu ànd ak yéen ci seen jotaayu xibaar kii di Yaay faatu jang nekk ku siiw lool ñu min ko mu sëyoon feeg Ahmed Khalifa Niass moom Yaay faatu Dieng nag ñu gis ne moom célébrité yi rek lay sëyal ñu gisoon ne Ahmed Khalifa Niass moo ko takkoon ginnaaw loolu kii di Serigne Boub daal di koy takk tey nag turu jëkkëram mu ngi ci Abdou Khadir Seck nekk maire foofee ci Gàcce Nawle moom Yaay Fatou nag takk nañ ko àllarba juróomi fan ci weeru août 2020 ci Sicap si teewa teewaayu membre ñaari famille ñu des ak yéen ci seen jotaayu xibaar. Uras Info l'info à temps réel. artis di Demba Guissé artiste musicien bu siiwlool yenn ci ay photo yoo xamante ni dafa fiwite ci internet bi daal di siiw loole ñu jàpp foto photo yooyu maanaam dafa mo mu ànd ci ki nga xamante ab la ñu bokk di sangu di def loo xamante ni lu leen neex la photo yoo xamante ni yu jekkut jaaduwut ci ay bët la ndax kii mu àndal nekkul soxnaam moom artiste bu siiw bii di Demba Guissé artiste musicien bu ñu ràññee lool fii ci Sénégal ba ñu ak ci seen jotaay xibaar. Uras Info, l'info. à ni leen ko waxee administrateur bii di Cheikh Niass bi mu jiitee groupe bii di Walfadjri ba tey gis nañ yenn xarxanam yu nga xam ni yu nu miinoon la foofee ci télé bii di Walfadjri ak rajo bi ginnaaw dellusi kii di Mamadou Biteye mi nga xamante ni moom ñëw na ci jamono yee passé ñu gisaat ki nga xamante ni moom mooy Mass Mboup nekkoon fi ab animateur foofee ci Walfadjri te ginnaaw Mass Mboup nag ñu mën tewaat keneen ki nga xam ne moom mooy Thiam Mass dellusiwaat na foofee ci Walfadjri borom ay xibaar yi ñu mujjee am foofe ca wal fajiri ci vendredi bi kii di père Edouard fay nga xam ni kilifa la woon ci wal fajiri père Edouard mi nga xam ni kite woon na foofe ca wal fajiri jaar na foofe ca det tv waaye en 2016 la doog a dem foofe ci set tv Cheikh ñas nag nekk administrateur foofe ca wal fajiri xamle na yëf yi du yem fii ab lancé la boo xam ni ñu bari dinañ delsiwaat kon ba tey yéen a ngi ànd ak ñun si i jotaayu xibaar yuñ leen amalee fii ci Uras Actu People ci altine bu nekk. Uras Info l'info atoriel wéyeg yéen ba tey ci seen jotaayu xibaar xarala yu bees yi moo xam portable yi wala réseaux sociaux yi commencé nañ di feeñal di def ay njombe di feeñal soxna yi nga xam ne dañoo am borom kër kenn ci soxna yi nag fan yi yëpp ñu ngi gis ab enregistrement boo xamante ni mu ngi baagante ci réseaux sociaux yi ab soxna la bu am borom kër di fixer rendez-vous moom ak waayam ak fi nga xamante fa lañ war a ak seen programme nuñ ko war a tëralee mën nañoo jàpp it bii dafa fiwute benn ci xarala yu bees yi rek nga xam ne mooy tasaare wax yi ci réseaux sociaux na naa indaale diw bi dégg nga benn oyal bi. Hmm, nga ko quoi. waaw. bu bëri oyal amul nag xam nga temps am. Hmm, dafa raar mais mais am na sama benn copine bu ko amoon nag franchement. waaw wutaale lay lijjante affaire am. Hmm, waaw kon wutaale moom bande xam naa dina am. des na ci yow xoolal bu xamala laa bëgg langue boo xam ne doo xalaat dara melal ni xoolal dëkkoo ci kër melal ni newoo ci kaw àddina nañ mel ni ñu ngi àjjana rek. mën nga ah? bul xalaat dara bul namm dara. Hmm. ndax doo namm gis ko jour boobu. Hmm. jeex na loolu laa bëgg. dañuy ñëw gis sa temps. Hmm. melal ni kuy fotowu tëdd nalaw. loolu sama bopp ngay def daal yëgal lu neex jama tàkk ma la koy jox ba nga daanu ñu dem defar ba mu rafet tàng xam nga dafa tàng ñu ñëwaat nag daal di waxtaan noppaliku ma lay karase yoo xam ne ci biir noppaliku bi naa lii mooy bokk na ci li gën a liñ leen indiloon ci seen jotaay xibaar bu leen amal altine bu jot ci seen Uras Actu People ak ci seen chaîne bii di Uras Info di leen jox dig daje beneen altine bii di ñëw incha allah ci seen yeneeni xibaar Uras Actu People yéen a àndoon ak seen xarit Mariama Seck wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Uras Info, Ribari Gao. Tewor. Uras Info, l'info à temps réel. Uras Info. Djanga te Tedegou, notre force, le traitement de l'info.